ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بوكي جاكار لوك غين دي نيو في سفينة تي في فغين من دي نيك تي غوخو أدنا نيغ لين بولي نيو بي ني يالا بولي غناو باج موسو الشيطان جيل سي يونتبي صلى الله عليه وسلم نيغ لين واخ كون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته di jiital ci nuyoo bi nag boroom kër gi di Thierno Yoro Bane di ko ziyaara di ko màggal di ko wàcce wàccuwaayam mook suñu directrice soxna ñu maaba ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ŋànk kër gi di leen ñaanal tawfiix ak taysiir yàlla yàggal leen fi yàlla wéral leen fi ñu yàgga taxawe lu ni mel ci liggéeyu diine euh, ku ne xam na ne ñu ngi ci weeru màgg weeru yiw weeru ngëneel weeru barke weer woowu nag moo ñuy tàggu te mooy weeru koor nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa daan da wax naan sama xeet buñ xamoon li nekk ci weeru koor ci ay yiw ak ay xeetu baax baax nee na danañ mebet at mi yépp nekk weeru koor ngir lan ngëneel yi ca nekk kon weer wo mi ngi ñuy tàggu te xamuñu ndax danañ ko fekke waatam dets en tout cas loolu la ñaan yàlla fekke ko ay weeri koor weeri koor ay téeméeri at yaan ko yàlla def te liñ ci def yépp yàlla nangu ko waaye comme yàlla rek moo xam ku nekk warna naa profitoo lu mu man ci li ci am yaakar ci li paase ne yàlla nangul na ko hakaza euh, ndax ngëneel yi ci am dafa amul feneen weeru ko nit mën na cee jaar yàlla jéggal ko ay bàkkaaram ba dootu ko xooleeti dara ba faw hakaza waaye ki nga xam ne tamit sàggan na ba weeru koor passé te kenn jéggalu ko kooku mooy ki perte mooy ki ñàkk chance comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee woon ci xadis bi kooku mooy ki jare yaram kon yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne profitoo nañ màng nañ ngëneel yi nga xam ne mi ngi ci weeru koor dëgg la nag weeru koor bépp jaamu yàlla boo ci def yàlla daf koy ful yàlla daf koy multiplier bu fekkoon diis nga ciy am cent nga ciy am bu fekkoon cent nga ciy am danga ci am mille euh, mu continuer noonu waaye tamit jëf yu baax bëgg nañ ko ko yok ci wëru koor mais ci luddul wëru weeru koor aussi bëgg nañ nit ki di def ay jëf yu bax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ci jëf yu bax la saxoon yiw lu mu ndaw ndaw xeebu ko digganteem ak borom ak digganteem ak doom adam ta comme nak mom la yàlla royloo laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun xasana loolu kon jullit bu nekk war na cee sax ndax yàlla nee na def naa yonent bi sallallahu alayhi wa ci yéen muy royukaay bu rafet muy lu mat a bàyyi xel kon liñ bëgg a wax foofu mooy même bu weeru koor bi jeexee ku nekk ci ñun war naa góor góorgóorlu lam noon def ci koor gi mu continuer di ko def ndax loolu mooy màndarga signe bu ñuy wan ne suñu koor nangu na waaye bu fekkee suñu koor bu jeexee ku nekk wàññi say jaamu yàlla wala sax nga dellu ca la nga nekkoon bu fekkee la nga nekkoon du jaamu yàlla kooku su boobaa day wane na sa yow sa koor nanguwul ni ngay xamee ne sa koor nangu na ak bépp jëf bu baax booy def sax mooy toujours dangay sentir ne sa gëm yàlla mi ngi yokk ci sa xol ragal yàlla mi ngi yokk ci sa xol yàlla mi ngi gën a màgg ci sa xool yaa ngi koy gën a yëg di ko sentir ci lépp looy dugg ak lépp looy génn su boobaa xamal ne sa koor nangu na sa yeneen jëf yu baax yaa ngi ci doon it nangu na waaye loolu bu amul su boobaa dafa mel ni kon résultat amul ndax objectif koor mooy ñu ragal yàlla kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla yaa ayuha allazina amanu xam leen na farataal nañ ci yéen koor comme niñ ko farataalee woon ci ñi leen jiitu ngir ngeen ragal yàlla loolu mooy seul objectif ndax ragal yàlla texe àdduna da cee nekk ak texe àllaaxira ragal yàlla ci ni ngay jëflantee ak moom waaye ragal yàlla ak ni ngay jëflantee ak mbindeef fii ñaar yooyu bu matalee rek kon texe dana am fii texe dana am fole kon koor dafa ñëw ngir texe lañu àdduna ak àllaaxira kon loolu bu amee rek xamal ne résultat biñ ci doon sentu am nañ ko waye bu amul nak su boba koku kon résultat ba amul muy la mata baye xel ndax jëf bi ci gën moy bi nga xamne dang ko saxo diko def yunus sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ban jëf mo gën ci jëf yi ban jëf mo gën ci jëf yi daf ne ba ca gëna sax donte néew na ahabul amali allah adwamuha wa in qalla waaw boo demee ci saxiixul Buxaari da nga ko fekk da nga ko fekk ci saxiixul muslim xadis boobu mu teg am na am na benn ci ñaari riwaaya boo xam ne teg na ci ne iklafu min al amali ma tutiquuna bi na ngeen toggoo ci jëf yi loo xam ne da ngeen ko mën da ngeen ko àttan waaw muy li mat a bàyyi xel waaw moo tax jëf ji nga xam ne da nga koo saxoo di ko def chaque jour Euh, Mo ëpp doole bi nga xam ne koy def tayi suba do ko def de temps en temps di def wala bi nga xam ne ko def benn yoon bàyyi ko bi nga saxoo moom la yàlla gën a bëgg la xadis bi wax lim gina a bëgg ci jëf yi mooy jëf boo xam ne dafa sax donte sax lu néew la waaye danga koo di ko def kooku yàlla mom la gina a bëgg ci jëf yi mu tëcc ne kon na ngeen toggoo ci jëf yi loo xam ne moom ngeen àttan moom ngeen mën lu xel la moo suñu mag jaamu yàlla ba yàlla nangul leen euh, jox leen ay ay turux loolu moo indi tarixa yi tarixa du dara lu dul jox la jëf boo xam ne ci jaamu yàlla da ngay saxoo di ko def waaw loolu mooy firi xadis boobu moo tax nga gis ñuy wasifa suba ak ngoon wala ñuy wasifa suba kese wala ñuy wasifa ngoon kese kooku yépp ci euh, foofu lay dugg macha allah laazim suba yi ak laazim ngoon muy lu mat a bàyyi xel kon jëf bi ci gën mooy bi nga xam ne dañ koo saxoo mu am continuité di dem waaye fekk amul continuité tamit teewul yàlla dana ko nangu waaye ba mu gën a sopp gën ko bëgg mooy bi nga xam ne am na continuité kon yàlla nañu yàlla saxal ci jëf yu baax yi ñu doon jéem di ko def ci weeru koor gi donte weeru koor paas na yàlla nañ ci yàlla saxal ba faw ba abadan ba sarmadan incha allah te am nañ ci yaakaar ndax ku ko ñaan ku nekk rek mu nangu la ujibu daawata daai iza daani falyastajibu li damay nangu ñaanu ku ma woo euh, ñaanu ku ma ñaan waaw ah, ku ma ñaan rek ma nangu la kon ñaan leen ma ma nangu leen kon ñaan yi ñu ñaan yàlla na ko boole ci yi nga xam ne danga koy nangu yow suñu borom tabaraka wa taala yow mi nga xam ne yaay dégg yaa gën a jege doom aadama buumu xolam yàlla na ñuy saxal ci di la jaamu yàlla na ñuy ci ñu ragal la yàlla na ngay yokk suñu imaan fu ñu toll kon jaam bi kon bu jógee ci weeru koor war na na te natt yàlla am ba xam avant koor fan la tolloon ak bi mu waree ba pare euh, lan moo ca yokk ndax gëm yàlla nekkul danga nga naan gëm naa yàlla rek bàyyi ndax saa su nekk da nga ko war a beesal ci sa xol xam nan la toll mu ngi évoluer wala évoluer wul te li tax nag gëm yàlla di évoluer di yokk walla muy wàññeeku mooy jëf yu baax yi ngay def euh, comme niñ ko niñ ko jàngee ci risaala yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi naqsiha la yokk gëm yàlla mooy jëf yu baax waaye la nga xam ne mooy wàññi gëm yàlla tamit mooy jëf yu baax yu néew waaw euh, fa fii fa yakunu fiha naqsu wa ziyaada ci jëf yu baax yi ci lay dépendre sa gëm yàlla yokk te day dépendre sa gëm yàlla wàññeeku te gëm yàlla comme ni ko waxee dañ ko war a baysal comme ni ko Seydil Hajj Malik waxee ca xutbaam ba jaddidul imaana fi kulli saatin wa awaan na ngeen beesal gëm yàlla ci bépp instant bépp jamono na ngeen beesal seen gëm yàlla muy lu mat a bàyyi xel kon rawatina nag bu ñu génnee ci weeru koor en même temps sax bu ñu nekkee ci biir weeru koor muy lu mat a bàyyi xel Euh, ni ki noonu tamit nit ki defar diggante ak borom digganteem ak borom ndax koor sa diggante ak sa borom la ndax nee na as sawmu lii wa ana ajzi bihi koor man maa moom maa koy fayal sama bopp ndax bépp ci jaamu yàlla yàlla dafa wut intermédiaire euh, bu dee julli day jaar ci malaaka yi soo ko dem bu dee euh, aj wala yeneen jaamu yàlla yi bu ci nekk am na malaaka yu muy jaar mu yóbbul ko suñ borom tabaraka wa taala donte sax moo gën a xam lépp waaye daf ko wutal intermédiaire ba mu des koor nee na koor moom moo koy fayal boppam directement ndax diggante jaam bi rek ak boroomu ndax boo wooree moom euh, sa diggante sa boroom la ndax boo ne woor naa te wóoroo di làqatu di lekk kooku wóoroo waaye moo tax kon sa diggante sa boroom kese la moo tax yàlla moo koy fayal boppam amul intermédiaire euh, muy lu mat a bàyyi xel yeneen jëf yëpp dafa am intermédiaire ba tax na tamit euh, euh, digganteeg sa boroom la waaye sa digganteeg say euh, mbokk doomu aadama ndax nit dana jaamu yàlla ba dee dem safara lan ma ko fa yóbbu xàq yi nga xam ne dana ko yoral doomu aadama lu mat a bàyyi xel nit di bàyyi xel digganteem naka lay dundee ak ay mbokk jullitam commencé ko ca mbokk ya ko gën a jege ci ñaari way jur sa yaay ak sa papa boo jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne kenn mësu koo def te sa wayjur kontaanu ci yow moo xam bu góore wala wu jigéen wa teewul boo deree safara nga jëm ndax yàlla nee na yonent bi salaa salaam fi ridal walidayn wa suxtil wa suxtullaahi fi suxtil walidayn bu paasee ñaari wayjur nga xam ne seen mer mooy meru yàlla seen contentement mooy contentement yàlla sa mbokk yàlla gën a jege tamit naka nga leen jokkee woon ndax jokk mbokk daf di farata yàlla ba mu bindee mbokk mbokk dafa jooy euh, mu ne ko lan ngay jooy mu ne ko damay ragal bu ma demee ci àdduna ñu may dog ñu may bañ a jokk mu ne ko demal ku la jokk ma jokk ko ku la dog ma dog waaw euh, moo tax ku jokk mbokk yàlla jokk la ku ko dog yàlla dog la kon bokk na ci jaamu yàlla gannaaw ba nga defee sa diggante ak moom nga defante sa diggante ak say mbokk boo ca paree nag say dëkkandoo say dëkkandoo nag sa mbokk yàlla gën a jege te nga dëkk ak ñoom ñoo ca jiitu topp nag ñi nga xam ne bokkuñoo yow dara ndax ku nekk am na xàq ci yow muy lu mat a bàyyi xel sa mbokk jullit yi nga xam ne ay julli lañ te dëkk ak yow ñooñu ñoo ca jiitu nga jëflanteeg ñoom ci jëflante bu rafet jullit booy jëflantee rek nga jëflanteeg moom ci jëflante bu rafet kooku day mottali jaamu yàlla waaye bu fekkee euh, dangay wax foo toll Euh, di wane ak jaamu yàlla di ko wane ci sa doxin di ko wane ci sa waxin kenn du la jiitu ci jàkka ja julli mbooloo yi wasifa yi euh, lawaasim yi yépp mi ngi mat xadaratul jumaa doo ko tardé waaye euh, sa digganteek sa mbokk jullit yi dara ra taxu ca fu ñu tuddee jullit danga wax ci moom lu ñaaw walla koo mën a jekku rek ba am ca moom la nga bëgg danga ko am doo sóoraale xaq ya nga xam ne moom nga koy yoreel moom nga koy yóbbaaleel walla koo mën a nax rek ba jëriñoo ko ah intérêt rek ngay àndee ak doomu aadama kooku su boobaa kuy def loolu say jaamu yàlla du dem fenn ndax yàlla du ko xool ndax bokk na ca fa muy xoolee ngir nangul la say jaamu yàlla ndax sa diggante ak euh, yeneen jaamu yàlla yi rattax na wala rattaxul kooku kon jullit bi na ci bàyyi xel bu baax a baax Euh, lu mat a bàyyi xel la ba tax na kon bëggoon nañu aussi waxtaan ci euh, asakaay muurum koor nga xam ne digle nañ ko ci mujjug weeru koor nga xam ne bokk na ci li nga xam ne mooy tax doomu aadama bi texe qad aflaha man tazakka wa zakara muy farata boo xam ne yonent bi moo ko faratal alquran daat ne texe na ka nga xam ne saraxe na ñu koy firee joxe murum koor daal di tudd boroomam dem julli ji kooku kon lu mat a xel murum koor nak, euh, ñi ngi ko xayma naka la war a toll ci wax euh, kan ak kan ñoo ko war ban heure lañ ko war a buñ ko génnee tamit kan lañ ko war a jox ak kan am ak kan murum euh, koor mooy sarax boobu ñuy def bu koor gi jeexee ban heure nga koy def mooy boo xëyee ci wax ji gën a lëng jiñ gën a jëfandikoo mooy boo xëyee balaa ngay julli ci donte sax def nga ko trois jours avant weeru ko weeru korité di feeñ wala sax nga def ko buñ ne suba la korité bu jant bi sooyee rek nga def ko wala wóori ne bi feeñ na nga def ko wala buñ ne tey la nga joxe ko waaye bi gën a lëng mooy boo xëyee rek balaa ngay dem jumaa ja nga dem nga joxe ko bu fekkee faat na la ba nga julli ji ba ñëw boo ko joxee am nga asakaay muurum ci li gën a wér am nga asakaay muurum ndax laa tafuutu bi mu dëyee zamaniha bu fekkee danga amul woon loo joxe mën nga bàyyi ba mu paase wóor na la na ko am après nga joxe ko su boobaa baax na naka la war a toll mooy euh, saa lay doon saa nag ñu ngi koy xayma ci ñaari kilo ñaari kilo ceeb masala ndax yaa ngi koy génne ci la ëpp ci li waa dëkk ba di dundee li ëpp nag bu dee ci Sénégal li ëpp ci li ñuy dundee mooy ceeb euh, kon ci lañ koy génne ñaari kilo lay toll am ñu ne un kilo ak liibar waaye daal boo defee ñaari kilo moom dalay wóor ne li nga war a génnee mat na euh, boo ko génnee kan ngay génneel yow boroom kër gi danga nga génneel sa bopp ak képp koo xam ne dundam yow la war sariya nag ñi nga xam ne ñoom la teg ci sa loxo ne seen dund yow la war mooy sa soxna moo ci njëkk say doom yi nga xam ne majeur aguñ say doom yi majeur bu fekkee eh, yaa leen di dundal sa dund seen dund waratu la eh, bokk na ci tamit ñi nga xam ne seen dund yow la war mooy bu fekkee sa wayjur mi ngi dund te eh, yàlla ma mëneewu ko gan maanaam dafa ñàkk kooku tamit su boobaa dundam yow la war waaye bu fekkee ku am la dundam waru la Euh, bu fekkee tamit sa yaay mi ngi dund kazalik mook sa way jur ñoo nekk seen dund yow la war euh, yow doom ji bu fekkee dañoo ñàkk bu fekkee dañoo am nag su boobaa seen dund waru la ni ki noonu soxna soo xam ne sa baay moo ko yor te amul aussi dundam yow la waraale kon ñooñ bu fekkee yaa ngi leen di dundal seen dundal yow la war su boobaa booy génnee asakaay muuram koor da leen génne waaleel ñoom ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi koy dundal te seen dundam yow la war waaye ñi nga xam ne yaa ngi leen dundal te seen dund waru la ñooñu boo leen génneelee tamit coobarewu génneel leen baax na waaye warul nga génneel leen kon da ngay génneel sa bopp 2 kilos ku nekk ci ñoom nga génneel ko 2 kilos euh, ci ceeb ndax ci ceeb kese lañ ko war a génne wala mën nga xayma li nga war a génne joxe ko ci xaalis waaw ci li gën a euh, wér ndax imaam Abu Hanifa radiallahu anhu d'accord na ci wax bu ni maanaam ñu xayma ko génne ko ci xaalis bu fekkee imaam Malik la nag moom daf na ci ñam rek lañ ko war a génne maanaam ci ci la ñuy dundee rek lañ ko war a génne ndax xadis ba daf ne tuamatun lil masakin mooy ñam la jëm ci miskin yi waaye boo xoolee tolluwaayu jamono ñu génne ko ci xaalis sax la gën a laaj que ñu génne ko ci ceeb ndax boo bàyyee ba ci jour korité bi ngay wër ay miskin yoo jox ay ceeb ñoom est-ce que jour boobu ndax pour ñu dund feet bi comme ñëpp la moo taxoon ñu di ko def ñëpp yem ci mbégte ak kontaante dund feet bi ci niñ ko bëggee moo taxoon ñuy génne lu ni mel waaye boo bàyyee ba ci jour bi nga génne ceeb bi ko ko jox fan la koy jaayee jour boobu bu fekkee amuloon kon su boobaa nga génne xaalis jox ko moom moom moo koy gën a arrangé hakaza kon boo seetee ci jamono daal xaalis mooy gën a mooy gën a kii ndax xaalis boobu mën na caa am ñam wu mu lekk ci bés bi boo delloo ci tooma ba kon lu wér la bu fekkee génne nga ko ci xaalis seet la nga war a génne ak nga war a génneel sa waa kër yépp nga xayma ko génne ko ci xaalis boobaa tamit def nga lu baax macha allah euh, euh, asakaay murum koor euh, su boobaa kon boo ko génnee Euh, maanaam jullit moo koy génne na nekk gor jamono bu jaam di am jaam yi asakaay murum koor waru leen woon ni ki noonu ko koy génne na na fekk mu am lu mu génne na fekk lu am lu mu génne waaye ki nga xam ne amul su boobaa wàcc na ko waaw danañ ko génneel xale bu majeur ak bu majeuragul nag euh, ku man mu kallaf ak ku mu kallaf yépp war na leen kon ñoo ñëpp dañ koy dañ koy génne ni ki noonu ki nga xam ne amul woon ba jour bi paase amul woon lu mu génnee ba jour bi passé ah su boobaa kooku euh, bu fekkee wóor na ko ne dana am mën na koo fay junj nañ ko sànq ci waxtaan bi waaye ki nga xam ne wóor na ko ne amul lu mu génne kooku na toog rek te recevoir moo gën ndax su boobaa asakaay murum koor waratu ko mën ngaa lebit bu fekkee wóor na ne danga am loo fayee mën ngaa leb génnee ko boo amee nga daal di nga daal di fay kon ci gàttal loolu mooy azakaay muurum koor mooy lu mat a bàyyi xel am na xadis buñ ciy soloo nag donte boroom xam-xam xadis yi nee nañ wérul ndax weeru koor dañuy wax ne dañ koo aj ci diggante asamaan ak suuf li nga woor yépp ñu ne bu fekkee génne woo azakaay muurum euh, su boobaa sa koor du mën a yéeg bu fekkee génne woo azakaay muurum wax bu siiw nag donte boroom xam-xam xadis yi mag weddi ko nee nañ xadis boobu daal wéerul amul cosaan ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lu mat a bàyyi xel la waaye nag suñu mag ñi ak suñu mag ñi nga xam ne ñoom lañ wóolu te ñu ay nit yàlla ñaare luñ wax lu nekk rek euh, am na cëslaay am na teguwaay te gis nañ ko ci xutba Seydil Hajj Malik euh, mu wax ko kon xadis boobu yaakaarees ne ne kon euh, xëy na wér na ndax xam-xam moom kenn mënu koo jeexal dangay gis li fa nga yem fa la sa moroom commencé jëm kaw wa fawqa kulli zi ilmin alim waaw loo xam-xam sàmba euh, ma ma dem a gën laa xam sàmba kon loolu lu mat a bàyyi xel la waxuma nag sàmba si euh, kon euh, mbokk yi loolu lañ indi woon ci waxtaan bi ci yóbbalu koor ban yóbbal lañu war a jëlee ci koor ci suñ diggante ak suñu borom waaye suñu diggante tamit ak suñu mbokk doomu aadama yi ci jëflante bi ñuy jëflante ak ñoom waaye tamit asakaay murum koor ci solo gi nga xam ne am na ko ci ci ci koor gi yaakaar naa liñ ci indi leer na waaye en tout cas lu ci leer ci suñu borom la lu ci lëndam ci ñu ñi ko doon waxtaane la suñu gàtt xam-xam ak ñàkk fasaa di wax ne in uridu illa al islaah mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen ñaanal yéen ñëpp korite jàmm ak salaam te yal nañ ko yàgg teewe di leen baalu xaq di leen baal xaq هكذا هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين